mbokki Sénégal yi ci biir ak ci biti maa ngi leen di nuyu di leen ziar man Aly Ngouille Ndiaye maa ñëw jàkkaarloo ak yéen ngir jongante njiitu réewum Sénégal ci dagaan boobu ñuy dagaan baatu réew mi ñoo ngi ànd ak ay doomu Sénégal góor ak jigéen yu ñu ràññee ci seen njàmbaar ak seen mën-mën fi réew mi toll ci ay jafe-jafe dund ak liggéey ci ndool ci ay xat-xat am nañu yéene joyanti ko ci yoonu naataange ba ku nekk gis ci boppam yàlla may nañu xam-xam ak mën-mën ci doxinu réew bu ngeen seetloo suñu jaar-jaar bi ñu tàmbalee liggéey ba nega ni tey dama ñëw dégtal leen sama yéene bu yàlla defee ñu nekk ci boppu réew mi bu boobaa dinañu jiital njariñu Sénégal ci lépp lu ñuy def loolu moo waral gannaaw bi ñu defee suñu taxaw seetlu ci doxinu réew mi ñu tëgg programme bu bees buy dellu si yaakaar ci askan wi rawatina ci ndaw ñi ñu fexe ba sénégalais bu nekk ci wàllu liggéeyam ci wàllu koom-koomam ak ci wàllu dundinam mu yokk ba yëg ko ci sunu màndaa fas na nañu yéene fexe ba Sénégal moom boppam ci lu muy dundee ngir ñoŋal mbay mi càmm gi ak napp gi dina ci def alal ju doy ba Sénégal dootu jëggaani dund di dooleel baykat bu nekk bitim réew bàyyi suñu yos ci wàllu industrie dinañu fexe bay denc ak a soppali li ñuy jëlee ci wàllu woowuma lim loolu dina indi ay xëy yu bari ci ndaw yi ak ci jigéen ñi delloo si seen yaakaar bu ngeen ma falee dinaa fexe ba Sénégal nekk ci kaaraange gu mat sëkk ci bépp fànn rawatina ci sunuy dëkkuwaay loolu ab jukki la ci ponk programme bi nga xam ne fas nañ ko yéene waxtaane ak yéen ci biir campagne électorale bi maa ngi leen di sant di leen dig daje ëllëg ak jàmm